<laughs> alors le temps nga ñëw toog ñu ñëw jàll ci document bi. benn waxtaan tey ak Mamadou Sylla Mamadou Sylla bu ngeen ko déggee suñu naataangoo la nekk ab journaliste euh, ci journal bi Le Témoin moom ñu tegoon ko loxo fële ca Mali euh, ay semaine ñaari weer daanaka tëj ko foofu ci kaso di ko toppee wàllum jihadisme mu di lu metti lu mu dund ay sénégalais yu bëri sax xamuñu ko woon xanaa bañ ko féexalee fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi euh, weesu rek la ko ñu bëri daal di yëg mu seq ab waxtaan ak Moussa Mané dellu si ci ni mu dundee séjour carcéral bi Euh, ca Mali ñu seetaan entretien bi dellu si waat. nga nekkoon ci loxoy yoon bi nga génnee ban yëg-yëg nga am bi nga génnee ba retrouver sa famille. yëg-yëg sant yàlla alhamdulilah ala kulli ni'ma euh, li ma fa li ma lu nekk daj naa ko ci prison bi mais li ma fa génn daal bi ma analyser ba xool xaw ma ko sax. donc dama jàpp ne kon ñaan yi ma doon ñaan la ak ñaan yi ma ñi ma fekk foofu bëgg ma ngir yàlla xam nga ay jullit bu ñu dajee ñuy waxtaan daañu jaamu yàlla ensemble dañuy jullandoo dañuy échanger ci loolu mbëggeel gu mag ak amitié bu mag juddu na ci ci ci ñenn ñi ci biir prison bi ñooñu aussi mu fàtte nañ seen bopp sax di ma ñaaral ne yow doo nitu fii alors donc euh, bi ma génne ba génn daal dama ne daal c'est la force de la prière doole bi ñaan am ak li ci yonent bi wax yëpp doole bi ngëm yàlla am moom ma génne prison parce que li ma wax ak sunu borom ci biir prison bi bu ma juddoo ba wax ak ñoom ne yàlla. est que mën nga dellu si si condition arrestation bi naka la demee histoire bi. c'était le 22 juillet loolu moom kenn du ko fàtte le 22 euh, bi passé boobu man man ba ba Bamako laa dëkk ma jóge Bamako dem Sénou Sénou c'est à quelques kilomètres de Bamako bi mu fa nekkee ba ngoon ma ma julli fa Guéwé bi ma jullee Guéwé nag. ba génn am raccourci bi nga xam ne mënoon na ma yóbbu ci national bi pour mën a jël oto dem dellu Bamako léegi nag xamatuma raccourci parce que xam nga Bamako am na partie nga xam ne amul presque électricité amul courant dafa lëndëm c'est comme un gros village euh, léegi nag may laaj waa ji nga xam ne ñoo dend woon bu ñuy julli ci jàkk ji ne ko waaw man lu mu ana raccourci bi mënuma ah yow xamoo raccourci bi ah kon yow xanaa gan nga ma ne ko non def naa fi ay euh, deux ans mu ne ma yow sa affaire leerul ana sa pièce ma ne ko yow yaay kan bi dama laaj pièce yow ana sa ma lan mooy moom mooy wane Sénégal nga wala Malien nga ma ne ko yow nag ci wax jooju nit ñi ñoo wóoruñu imam bi sax génn wóoruñu alors euh, ñu oo ñu oo gendarmerie bi ñu koy wax sax yëgu ma ko gendarmerie ñëw jël ma yóbbu bi ñu ma yóbboo ñu enquête euh, ñu ñu euh, officier de gendarmerie bi parce que c'est seenu gendarmerie bi daal di ma laaj introsé pendant quatre heures cinq heures de temps jël samay photo photocopier samay papier alors entretien bi nag ça s'est très bien passé waaw di ma laaj loo fiy def lu tax nga loo loo loo tax ngay laaj raccourci mais li jar a xam. mooy la population était dans la tension et dans l'euphorie ainsi que les forces de l'ordre parce que kat euh, Bamako ba ne Kati ba ne d'être attaqué Kati soriwul Bamako mu ngi mel ne ma ne tubaab jalaaw attaqué nañ ko wala Sébikotane Tëngéej attaqué nañ ko kon yegg nañ Dakar léegi loolu moo tiital ñëpp beneen àjjuma bi mu ñëwee ñu yóbbu ñu devant le procureur de la République euh, ñu yóbbu ñu devant le juge d'instruction le juge d'instruction moom yàgguñu sax dama ñëw mu mu ne ma moom la si am na waa ma ne ko waaw mu ne euh, je me mets sous mandat de dépôt voilà ma toog di ko xool mooy xool suis resté presque un mois mu boobaat ma bu ma boobaatee assesseur yi ñoom ñoom ñoom ñoo ma ñoo ma ñoo ma recevoir posé ma encore des questions pour xam ndax dinaa jaaraat fi ma jaaroon yu mel noonu def loolu te tout s'est bien passé ñu delloo ma prison benn ma génne. lu ñu lay reproché bokk na naan peut-être da nga nekk en contact ak ay jihadistes surtout zone de conflit la. voilà mooy acte d'accusation bi ñu ko xam bi ñu indee à la prison de Bomba parce que du man man rek ah bi ma duggoo ci prison Sénou fekk naa fi ñu bari bi ñu jógee foofu aussi dem euh, ba procureur bi kii nu ñëw bu ma nag à la grande prison foofu mooy prison bi nag foofu ngay xaar ñu jugé la léegi nag bi ma ñëwee ba foofu jour bi ñu ñëwee ñun ñëpp ñu fekk fa ñeneen nga nga am groupe bi ñu ñëwee toog nag léegi nag officier de police bi ñu moo lire l' acte d' accusation mooy lan mooy nous sommes des terroristes tous autant que nous sommes des terroristes et djihadistes en relation avec une société étrangère ils font peut-être à la France waaw man nag mon cas c'est un peu difficile parce que ils ont vu mes les photocopies de mes diplômes gis nañu ne France lañ ma formé donc pour ñoom dañu am intuition comme que dañu am ñaaw njort ne kon kii euh, il est quelque part peut-être français <laughs> bon noonu laa ñu ngi ko xam ba ñu yóbbu ñu noon la ñu duggee ci ci ci prison bi. man bi may libéré le 12 octobre passé 12 octobre bi mais ñi ñi ma àndoon pour ñu ci libération bi yëpp nous sommes quelques huit mais si defe naa yàlla ma yàlla ma yàlla man rek maa ci nekk nit ñi ci des ñëpp ay dañoo feebar ay malades mentaux man xaw ma lu ñu jublu ci loolu léegi nag. am na ci koo xam ne dañ ko laaj ne ko noo tudd mu wax tur bi nga xam ne waxu ko woon bi ñu koy jàpp ñu ne ko may yow waxuloo woon bii tur mun a mun a dëgg dëgg dëgg fàtte naa sama tur foo dëkk fàtte naa fi ma dëkk kooku xam nga dof la donc ñoom ñëpp ay ay ay man daal ay dof bi may génn dof yi la ñu génn ak man bàyyi ko xam naa nit ñi. <laughs> ñu gis ne comme jamono jooju Mali dafa nekkoon ci crise surtout que CEDEAO aussi jëloon na ay mesures sanctions yu mu tegoon ci kaw Mali yëpp est-ce que wóoroon na ngay génn di doxantu yenn heures yi surtout en même bu dee journaliste nga xam ne dañuy jàpp ñoom ils son informés. non mais mais mais Mali nekkul en en en état kii ah. ñi ñaa ngi doxantu comme au Sénégal dañuy génn di dem restaurant yi di di di liggéey di wàcc il y a aucun problème à ce niveau mais euh, il est préférable de ne pas marcher la nuit quand même surtout pour un étranger de pas de la nuit boo génnee guddi moom euh, mën nañ la jàppe même boo amee pièce mën nañ laa yóbbu il suffit que ñu xool sa profil rek gis ne tu ñu soupçonné la mën nañ laa yóbbu. naka nga dundee ci biir prison condition de détention yi est-ce que yomboon bi may dugg prison yoruma xaalis mille deux cent trois cent moo nekkoon son poste waa ji jël ko. benn policier moo ko moo ko jël parce que kay dañuy déposé dañuy jël seen xaalis yëpp am na ñoo xam ne ñu ngi yoroon forte somme mais ñooñu dañuy wax ne sax dañ leen ko doon delloo ñu ne boo nañ xaar ba bi ñuy génn ñu jël ko man nag man comme man yoruma lu bari 1200 ko sax su ma ko laajoon xëy na ñu jox ma ko mais yor mais ci biir prison bi soo amul ku la yónnee xaalis te man kenn xamuloon ne maa ngi prison du samay xarit yi nekk Mali du journaliste yi nekk Mali du Sénégal du kenn pendant plus de deux mois kenn xamul maa ngi prison. mais lekk bi li ñuy togg prison kenn mënu ko lekk léegi boo fekkee am nga xaalis da ngay jënd ay sandwich sa lépp looy jënd moo gën a cher bu nekkoo ci biti bu sandwich yi jël 500 francs ci biti 1000 francs lay jar ci biir kii bi te ci gris yi ngay kii rek ñu yónnee ñu jox la wala nga yónnee ay plat ñu jox la mais il faut nga am xaalis léegi nag ci condition yooyu laa am occasion ni ma téléphoné Sénégal mais kii ma bëgg ki ma woo mooy sama ancien directeur de publication mooy Mamadou ma ko woowee mu yónnee ma xaalis waaw ñu garde contact nag ñuy def ñoom tam ñuy bu baax pour ñu ma libérer foofu. mais est-ce que amoon nga soutien autorités yi sénégalaises yi ñi nga xam ñoom ñoo nekkoon ci kaw nguur yeeg yooyu. Euh, bi aussi yónnee na fa benn benn waay pour man maa leen woo. j'ai eu l'occasion de oo leen ba ñu yónnee benn waaye ma wax li ma la wax nii rek dans les conditions dañ dañ ma jàpp tam ñu ne ambassadeur bi nee na dina dem gis euh, procureur dina dem gis. Euh, Euh, juge d'instruction bi wala procureur bi pour xool affaire bi ni ma ciy génne waaw ñoom tam maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen effort mais tous tous les efforts accumulés c'est après ou avant amul parce que bi ma bi ñu ma libéré dem naa pale lu mu foogoon dafa am ko def intervention mais ñu ne ma ñu ma amul benn intervention. pale pale foofu. waaw pale de peut-être pale de justice alors euh, bi ma demee ma xoo ma laajte fexe ba xam. kan moo def parce que ma ni ma génne daf ma jaaxal dama jékki jekki rek ñu woo ma Mamadou Sylla wuy man lañ njëkk a woo ma ñëw taxaw ci gris yi ñu ne ma waa ji ne ma prenez vos bagages et suivez-moi vous êtes libre mais rek samay rongoñ di tuur bi bi bi ma nee ñu ngi waa prison bi ñu bëri lu yuuxu naan allahu akbar <laughs> di di di sàbbal yàlla léegi ñu ñëpp di ma fóon ba waa ne ma yow gaawal génn. parce que mënu ma woon ñii di bëgg ma jox seen numéro téléphone seen numéro portable ñii di ma pon di ma ñaanal yàlla ñii mënuñu ma sax bàyyi parce que prison bi am nañu ay liens yi nga xam ne c'est extraordinaire ñooy bokk di naan ataaya ñooy def lépp. ñaata temps nga fa def. naa fa le temps le 22 juillet ma laa dem lañ ma jàpp ba le 12 octobre donc deux mois et demi à peu près. est que tey yow ak li nga fa jot a dund yëpp yaa ngi waajalaat dellu fa wala définitivement jeex na pour yow ji dellu Mali. non mën naa faa dellu parce que amul problème parce que parce que xam non amul benn problème man kenn néew ma sax ñibbil man maa ñibbil sama bopp mais kenn néew ma ñibbil j'ai des amis j'ai des relations j'ai des confrères bi nga xam ne bi ñu yëgee na libéré naa ñëw nañu kër ga ñoom ñoo ma xaw a yéexal sax def naa quatre cinq jours a Mali pour pour les recevoir mais loolu dafa rëy mais ñun ñëpp benn lañu c'est la même culture c'est les mêmes ethnies c'est les c'est les mêmes langues et c'est la même religion ñu bëri Sénégalais yu bëri ils sont originaires am na malien yu bëri yi nga xam ne seen yaay wala seen maam wala seen baay sénégalais la donc ñun ñëpp benn lañ boo demoon Mali doo dépaysé parce que tu manges la même chose qu'au Sénégal donc vraiment man je ne me sens même pas à l'étranger en en Mali en Mauritanie en Gambie je pas à me sentir à l'étranger wa wallaay wallaay merci beaucoup euh, Moussa Mané ci euh, entretien boobule euh, Chérif dégg nañ ko suñu naataango bi di Mamadou silla ñu tëj ko daanaka deux mois et foofu foofule ca Mali xëy benn jour rek ne ko bàyyi nañ la demal nga ñibbi maanaam furaas. loolu mooy yabaate ak jafe-jafe bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci Afrique ci suñu système judiciaire yi de manière générale maanaam booy topp nit jël ay accusation teg ko ci ko kawam te amoo preuve ngir topp ko. xëy suba bàyyi ko après porte nga ko déjà préjudice ndàmpaay defoo ko ko muñ bi toor boobu amoon noo koy fajee te loolu gis nañ ko rawatina ci réew yi nga xamante ni que état de droit dañ cee tumuraanke moom moo taxoon ñu considéré man wax naa leen ko fii bi fi ay coup d'état di am am ñu koy rafetlu di ko kañ ma ne leen yéen ci juum parce que am na ñoo xam ne ay dictateur lañ loolu lañ xam surtout militaires yi li nemee ko mooy bu nekkee ci nguur yaakaar donc suñu doyen bi déjà ñu koy masawu déjà parce que coono bi ko teg mhm. mais il a vraiment très courageux parce que boo nekkee ci njub moom mhm. doo ragal dëgg comme ni mu waxee ce qui comment il s'est défendu devant déjà magistrat yi nga xamante ñoom ñoo ko doon teg yooyee tuuma et ba deram tey set na ci mhm. muy loo xamante ne quand lu lu rafet la on salue d'abord sa libération mais ñaawlu encore une fois rek il faut ñu xoolaat Afrique suñu taxawaay moom moo defal na ko ko <coughs> c'est ça euh, soutenir ko daanaka ñu bari sax yëguñu woon ni mi ngi foofu ba muy waaj a génn la ko ñenn ñi yëg ñu ci bari moom euh, bañ ko génnee def benn interview lañ xam ni amoon na ay jafe-jafe ca Mali ba ñu téye ko fa. waaw parce que circonstances yi ñu ko jàppee moom moo tax parce que il a été au mauvais moment au au, au mauvais endroit au, euh, mauvais moment donc mu nekk lu nga xam ne lu metti la lu tiis la surtout que def na pratiquement un mois yu nga xam ne kenn xamul fu mu nekk. Mhm. kenn heureusement que il a gardé toute sa lucidité en prison ba xelam may ko mu ne xaaral ma woo Mamadou Oumar Ndiaye Mamadou aussi def ci lu mu ci war a def euh, l' ambassadeur également bi mu leen jotee yónnee nañ fa ndaw mais encore une fois boo nekkee ci zone de zone de zone de conflit il faut être très que à tout moment mun nañ la teg loxo ci ci ci ay détails yu nga xam ni xëy na taqewoo ca laalewoo ca quoi donc euh, vraiment ñu koy massawu bu baax xëy na saison son destin mais encore une fois euh, il a été courageux jeu. Ah, et puis voilà il a hmm. été très digne ba yàlla dimbali ko tey ba mu génn ba di nettali fi nga xam ne fa la jaar. représentation diplomatique bi ma euh, naam sax yónnee nañ fa ndaw ñoom taxul ñu bàyyi ko maanaam hmm. amul kenn ku tax ñu bàyyi ko. dañoo xëy rek ne ko mën ngaa dem mais ko. c'est ça dañoo xëy rek ne ko mën nga dem. wane mais saisir les autorités sénégalaises saisir organe bi mu ne fa nekk ndax kii fii lay liggéey il faut une enquête sérieuse avant nit di ko di ko tëj noonu Ablaye Cissé bonjour noo def mbaa yaa ngi ci jàmm a maa ngi xanaa yow demoon nga Mali xanaa xanaa bi diis démb rek mais sinon waaw non je je découvre sax man man cette histoire là comme certainement. Mm. beaucoup d'autres. Euh, <clears throat> juste benn considération rek. Mm. gis nga c'est la preuve que y a pas de vérité dans la stratégie pour. gérer affaire yu mel nii. Mhm. parce que mënoon na doon lu ñu médiatiser pour mettre la pression. c'est ça peut-être que mën na gën a braquer les autorités maliennes. Mhm. mën na gêner aussi les autorités sénégalaises mais ça s'est géré dans la discrétion mu metti lool na ci koy dund. Mhm. parce que xëy na mën nga dem sax ba saalit. saalit bi sax mën na la indil. nga fippu finalement soit médiatiser ko wala siiwal def ci leneen. mais rôle état yi aussi je serais juste moins nuancé bàyyi nañ ma te kenn inter kenn defu ci intervention parce que autorité yi ñëw nañ fa. Mhm. mais du loolu tax ñu bàyyi ko xëy na. c'était un choix de travailler dans la discrétion xëy na aussi loolu moo tax ñu bàyyi ko on ne pas donc loolu ñu am ci njort bu rafet ci xëy na autorité di diplomatique yi def nañu ci mhm. li tax surtout bu nit tëbee tëb rek bàyyi la nga dem xëy na am na lu nekk ci suuf am na lu tax du caagan ñoom ñoo rendre compte ci seen erreur mais mhm. encore une fois li Chérif tëj nit dafa metti mais rawatina teg tuuma bu toll ni tuuma yii parce que tuuma yi fépp la lay toppee kii tey <laughs> am na dëkk yoo xam ne mënut a tukki de <laughs> parce que tuuma wu terrorisme moom da koy topp mm. na dëkk yoo xam ne day soo fa demee pour nga ñaan visa beneen dëkk dañ la koy bañal xam nga donc genre tuuma yi teg ko ci nit te amoo ci lu wóor mm-hmm. wala sax mën nga koo teg ci nit mais nga liñ bët leeral ko rapidement mais tëj fàtte Hmm. loolu moom war naa jeex. voilà euh, Marcel avant ñu jàll ci jàngat bi. très rapidement je pense que ñaari weer ak genn wàll comme ni nga ko waxee lañ ko lañ ko jàpp euh, loolu aax gënu ko rëy ci ñu privé de de liberté pendant tout ce temps pour que finalement ñu on se on se rende compte que euh, il est finalement innocent donc amul woon loo xamante ne waroon nañ ko ko reprocher di rejoindre un petit peu lu Chérif wax mooy mhm. li nga xamante moom mooy cette paranoïa. yenn régime dictatoriaux yi nga xamante ne c'est incarné par des par des militaires ñoom am ndax bu ñu seet attaque bi taxoon euh, euh, force de défense et de sécurité maliens yi daal di repousser euh, djihadistes yi ça s'est passé donc à Kati muy le plus important euh, camp camp militaire de de de en tout cas du Mali euh, te c'est situé quelques embouchures de fi nga xamante ne moom mooy autorité transition yi fi ñuy mhm. donc à quelques kilomètres de Bamako tamit donc Silla wax na ko sànq mhm. et lu gën a a doy waar c'est que Mamadou Silla moom yàgg na nekk correspondant ci li nga xamante ne moom mooy actualité proche ak Moyen-Orient notamment ci conflit bu am diggante Israël ak Palestine et puis d'ailleurs selon une source sax moom lu taxoon mu nekkoon ci endroit boobu jamono jooju c'est parce que en compagnie d'un d'un ami gambien dont la femme est d'origine malienne dañ doon liggéey euh, ne moom mooy euh, lancement benn journal mhm. à orientation islamique donc justement le but c'était que ñu euh, contrer li nga xamante moom mooy influence djihadiste donc euh, je pense que bu ñu poussé enquête bi dinañ mën a xam ne finalement moom amul aucun lien avec les djihadistes mhm. di comme comme ni ñu ko defee vraiment c'est mhm. pas c'est pas évident c'est ça merci beaucoup un excellent journaliste professionnel liggéeyoon na liggéeyoon en nomb <laughs> ma doon nàmp de xaw ma yow loo doon def merci beaucoup ñu ngi koy nuyuwaale moom Tutane Diak euh, léegi dañuy jàll ci jàngat bi euh, dañuy jàll ci page de pub.